bi na libre transparent démocratique et inclusif. wa waaw mais Maïmouna da nga bëgg wax ne processus bi. c'est non non non laaj non non c'est un vœu que j'exprime. waaw mais yàlla na yàlla na def loolu. te mu inclusif. waaw bu dee sa ñaan la kay. képp ku war a bokk. ku war a bokk. ñu bañ a entraver sa candidature. a bokk képp ku war a bokk. waaw ah. a képp ku war a bokk xam nga yaa ngi dugg ci yaa ngi dugg ci beneen beneen mbir. waaw euh, man xam wax képp ku war a bokk. Ah. yàlla nga bokk mais képp ku warul bokk yàlla boo bokk. waaw waaw waaw mais ñu bañ a entraver sa candidature par des. entraver entraver quoi. entraver sa candidature par des ficelles judici judiciaires par des prox boo buggee moo wax loolu non boo buggee boo buggee une réponse précise il faut poser une ah, question précise xam nga lan moo tax may may may wax loolu. waa Pastef dañoo ne woon Sonko mooy seen candidat eux ils se rendent compte de la difficulté de de de l'exercice ils choisissent un can un autre candidat ce candidat là il est dans les liens de la détention mais il est électeur et éligible et depuis démb euh, depuis semaine bi j'entends les gens de l'APR dire euh, le parti a été dissous donc dafay am des voies de conséquences judiciaires sur les les les membres de ce de ce parti là am na ñuy dem bay invoquer l'article L57 du code électoral PASTEF di dissous cour de justice CEDEAO confirmé na ko à Dakar nañu leen choisir nañ beneen candidat candidat bi bu demul bu nekkul candidature indépendante rien ne devrait l'empêcher. Maïmouna, kan mooy valider les candidatures. c'est le conseil constitutionnel. bu utiliser wu Pastef ne devrait l'empêcher d'y aller mais bu utiliser beneen coalition. Maïmouna euh, deux autres ay coalition bu ñu ko am nga nañu sa raisonnement la. yow mii yaay xalaatee. loi bi laay wax ma ne yow yaay xalaat. a la place de Pastef. man li ma jàpp mooy ku nekk am nga sañ-sañ ne candidat candidat la mais kenn mooy valider candidature c'est le conseil constitutionnel. ku conseil constitutionnel valide candidature mu jàll. ku mu invalider sa candidature ñu constater que ta candidature est invalidée. c'est pas si facile que ça ah. c'est pas si facile que ça c'est c'est c'est pas compliqué. parce que conseil buy valider candidature euh, dafay am des voies de conséquence. ma ne ma ne en deux mille en en deux mille douze deux mille onze avant ñuy dem élection. conseil constitutionnel dafa valider candidature président Abdoulaye Wade. waaw est ce que ñun tere nañu dem élection. tere ñu dem élection voilà on est allé aux élections on a gagné. en 2019 on a conseil constitutionnel moom day ñëw tijji xool ndax bu remplissez les conditions. waaw lan la war a def lu loolu. xam conseil constitutionnel loolu lay xool la war a def lu dul loolu. non loolu lay xool fa lay yem. waaw mais 2019 Karim Wade ak Khalifa waaw bu ñu modifié wul woon. la loi électorale mm-hmm. ah les articles L30 L31 mm-hmm. ah mm-hmm. kon xëy na conseil constitutionnel du invalider seen candidature loolu laay wax c'est le euh, processus euh, euh, en amont Maïmouna man je ne suis pas dans le juridisme du ma nekk fii di def ay ay ay ay météo bu ñu deful lii bu ñu deful lële li ma lay wax mooy c'est le conseil constitutionnel qui valide les candidatures yow am nga sañ-sañ déposer sa candidature bu fekkee ne am nga parrainage si si vous passez l'étape du parrainage xam naa ne boo demoon boo déposé woon candidature doo jàll parrainage. non du ma jàll. <laughs> donc bëri nga ci ay morom dégg nga. ah du nga ci ay morom ci ñi nga xam ne dañu prétendre tey euh, euh, déposer seen candidature mais man dama jàpp ni c'est le conseil constitutionnel qui valide les candidatures. ku jàpp ni war na nekk candidat bu ñu eggee ci loolu na déposer candidature am bu ko conseil conseil xam nga il faut que ñu jël exemple ci APR en 2012 candidature président Ablaye Wade tout le monde l'a décrié. yi Sall kese moo ko nangu woon. wan non et, la preuve et, et, et les conséquences lan la. lan la lan mooy conséquences yi on est allé battre campagne on a gagné les élections mbir mi mbiru gëm ngëm ngëm la du leneen. merci nit dafay gëm li borom bi dogal bu buggee noppalu.